ca contrôleur aérien yi ni ki tey yeeg ëllëg du ñu fas taxaat ak morom ma ndax dañoo bagg seen yoxo maa la ko wax de bés bi la jour ne ndogal bi nag mooy yëngal gësam aseg naa waxtu wi lompañal dem beeg dëkk bi ci ay dëkk yu bëri ci Afrique bokk na ci sunu réew di Sénégal dogal bi na nga xam ne gars yi jël ko moom meral ba futti kilifa yi ci réew mi ak ci bitim réew ndax ba tey daal mënuñu ko wanaasu déedéet looloo tax ñu gàll ay réquisition ay licenciement yu topp ci wàllu yoon jëmale ko ci grévistes yi waaye nag gars yi nee nañu muy taw naaj wala muy ngelaw seen grève bi ñu sàpp daal du ci del ginnaaw ndax danañu fas yéene dem ba jeex takk bu nu sukkandikoo seen kàddu Mouhamed Moussa di directeur ASECNA ne ci yëglekaay groupe E-Media bi ay lobbying yoo xam ne ñoo nekk ci bitim réew ak i compagnie yoo xamante ni seen wujju lañu ñoo nekk ci ginnaaw coow li lépp jolli ci contrôleur aérien yi problème yaa ngi démarré waa ji ne gars yi dañoo nekk ci ginnaaw grévistes di leen xamb ngir ñu taral mbir mi gàllankoor dem beeg dikk bi ci jaww ji le Quotidien en tout cas nga yëg nga ñàkk yëg tey daal asamaan si daal du neex ndax lëndëm cruise ñuul kukk lay def ndax contrôleur aérien ñoo bank seen yoxo tey ji ak ëllëg doote état bu Sénégal na lañ bu ñu dem ci grève juge de référé jël mesure ngir dakkal grève waaye gars yi ne seen tànk fi ñu ko teg duñ ko dindi virgule dem rek ba ndaxte secrétaire général syndicat aiguilleurs yi di François Gomis nee na muy taw muy naaj wala muy ngelaw menacé xub yi mënul dara ci grève bi nga xam ne samp nañ ko tey jii ak ëllëg ndax amul benn mesure boo xam ne mën na tax ba ñu del ci ginnaaw seen dogal bi nga xam ne jël nañ ko ba noppi lii kon jëne fukki réew ak juróom ñetti waxtu yi kon dem bég dikk bi daa nar dem bég dikk bi ci la tribune Tribune ne Moustapha Niass président assemblée nationale ba woon ak Baba Diaw seen tur jolli na ci scandale gu rëy jëm ci wàllu pétrole ca Nigéria le réveil ne Moustapha kay ak Baba Diaw seen tur moo jib ci corruption maanaam guerre gu ëpp fukki milliards ak juróom te musiba gi nag projet Suisse secret moo ko fësal waaye Moustapha Niass AFP nekkoon jiital assemblée nationale nee na coow li nga xam ne turam daal jib na ci mësu koo dégg takku ci laalawu ci donte te 2006 la war ne ni coow lu rëy moo jëlu ci ko waxtu yi kon teere na ci kanamu autoatekaay ci Sénégal te lu ëpp ñetti téeméeri million ak ñeent fukk li ko merloo ba tax mu yóbbu mbiri ci kanamu autoatekaay mooy digg nga xam ne Rose Wardini defoon na ko lépp jëfeewu ci dara li tax ba libération ne waxtu wi nag moom Rose Wardini ay comptam saisir nañ ko immeuble bi nekk ci corniche bi tamit dañ ko tayle laas ne dëkkum njiitu réew mi Macky Sall nee ma Fatick waxtu wi daa inondé ndax mën mu tar moo fa amee yëglekaay bi ne waxtu wi dañuy tëmb ndax ndox mee ko nangu ay néegu ñax xam ne lépp daanul subaskan ci jafe-jafe yu tar tool yi tamit ndox mi nangu ko li nag nekk gàllankoor gu rëy ci waa Fatick waaye président waxal waay li ñu war wax dëgg kay ci réew mi la turbine nee na mooy scandale yi am ci l'hôpital ci réew mi ginnaaw Louga ak Kédougou ak Tivaouane beneen scandale am na ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu fa dee bu jigéen bi ñàkk bakkanam ne dàqu ñu yóbbu mbiri hôpital yi ci Sénégal donte nag fajkat yi nekk de njabootam nag nee nañu li ñu nar dëgg nag mooy yób mbiri ci kanamu auto-entekaay ci Sénégal ginnaaw musiba gi ëllëg seen kaw les écoles maternité bu Grand Yoff amatul ndox i waaw waaw ndax facture ndox bu toll ci ñetti million moo tax seen o jël masir te juróomi nay rab waxtu wi kon ndox daal amatu fa problème yi démarré na de yëgle kaay bi ne maternité Grand Yoff li nag du fa guléet ndax li ñuy coupé seen ndox daal bëri na ndox moom waxtu fi daal amu fa bés bi la journée Amadou Ba ak gouvernement bu mu samp ci réewum Sénégal di gouvernement de combat bi est sax seen combat bi ñàkkuñ ko ba noppi Assane Gueye def ñàngat wu rëy ci gouvernement bu Amadou Ba bi ci bés bi la jour laas ne njiitu réew mi Macky Sall de kontaanul de ci militants yi APR yi nga xam ne ñoo nekk ci États-Unis laatur bi ne ginnaaw Khalifa Sall ak kurus ñuul kooku la teg ci nguur Macky Sall bi jëm ci aar ak doomu aadama yi ndaxte nee na lépp lañ salfaañe ci Sénégal le témoin moom xëy di laaj ëllëgu Idrissa Seck mburoog soow ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ginnaaw gouvernement bu yees bi nga xam ne samp nañ ko ci réewum Sénégal wal fajri ne coalition Yewwi Askan Wi wax waxee dëgg la def ci cumul de mandat yi ndax ba tey ji far ci coalition Yewwi Askan Wi te yore ñaari nombal tànk ba tollantiwu ko ci gouvernement de combat bu mu samp yëglekaay bi ne congrès bi nga xam ne waa AFP jàppoon nañ ci weeru sulet atum ba tey ji amalaguñu ko les économies nag ñi mer dëgg mooy farandoo Abdoulaye Baldé yi njiital UCS ba noppi ne président commission bi ñu ko dénk di défense ci assemblée nationale bëgguñ ko tey bëgguñ ko ëllëg yëglekaay bi ne àndu Abdoulaye Baldé njiitu réew mi Macky Sall mu ngay bëgg a xajam ak ndaxte moom tem la ñu def ndaxte nee nañu dootuñu nangu mu gaay di songu Mariama Sarr ca dëkku Mboose ndaxte Cheikh Baye Thiam njiital mouvement Akhlan nee nañu taxaw tem la ñuy def ku wooxuti Mariama Sarr ñu xuru la ba noppi nag fësal seen njàppandal ci Mariama Sarr laataa ñu rafetlu duggam ci gouvernement bu Macky Sall bi l'observateur ne état bu Sénégal lu toll ci téeméeri oto juróom benn fukk juróom la may député yi nekkoon ci treizième législature bi ba noppi nañu jot seen oto di mën a dem ak dik lii laas ne depuis imam Moustapha Gueye ni ki tey lay yegg ci Dakar capitale bu Sénégal bu ñu noppee nag amal cérémonie levée du corps wi laataa ñu koy jébbal boromam ca fa mu cosaanoo ca Matam libération ne musiba dëgg nag moo am ci Tëngéej ndax benn xale bu jigéen boo xam ne daa ci benn sëriñ bu xaabakat ngir ñaan lu ngir am borom kër moom bu xaabakat bi dorogé ko ba noppi violé ko nee na ngir dindi faru rab bi nga xam ne xale bu jigéen moom la àndal mbir bi ñu yóbbu ci kanamu tribunal bi moom